ci tàcc yu dul jeex lañu daal di jox raaya bi ñi ko gën a yeeyoo ñoom nag ñu nekk ay xarit bokk classe tollu ci sixième ñu daal di woñe seen xarañte ñu daal di jëmmal ab éruption volcanique ñeneen daal di liggéey ci ay projet yu ci mel ni système d'irrigation intelligent le système solaire la voiture électrique robotique ak yeneen li ñu duppee science fair maanaam jabawu xam-xamu science solo bi moo di ndaw ñi daal di gën a fësal seeni bopp. li ci gën a am solo sax du gañe bi mais processus bi. nga ñëw ci ki lay sa coach sa mentor mu ne la ah lii de baaxul ah jubbantiwaat ko ni ah demal fais un plus de recherche pas en te donnant la réponse mais en posant laaj la ay questions yoo xam ne day tax yow nga gën a gëstuwaat. liggéey bu am solo ak déggoo gi am seen biir moo waral liñ foogoon ni dafay jafe ci ndorteel gi ñu daal di koy jëmmal. ñu laaj leen yéen lan ngeen soxla pour mën a defar seen séance fair bi ñoom ñu wax ñu li ñu soxla ñun ñu indil leen ko ci noonu nag lañ leen jàppalee. yooyu leen ndaw nag ñi nga xamante ne ay kàngam lañ gannaaw ba ñu amalee seen simulation ba pare àggali ko rek la ñu daal di gis. docteur. docteur après mel nag dina yomb ndaxte waajal nañ ko bu baax. parce lii ñu liggéey tey nii nga xam ne dafa euh, tegu ci xam-xam li ñu bëgg mooy ndongo yi jëriñoo ko ñu bañ ko sànni si mbalit mi bu ko defee ëllëg ñoom li ñuy liggéey yépp euh, dina leen jëriñ dinañ si mën sukkandiku. lu toll euh, juróom fukki projet ak ñett lañu ñu daal di présenté raaya nag li ci ëpp ay jigéen ñoo ko gañe mu mel ni rek ñuy ubbil buntu ñeneen ñi ngir ñu daal di àggale seen i jàng itam ñu gën a yëngu ci matière scientifique yi.